sécurité yëpp la ñuy yokkal dina dina récupérer Yola ya, yola ya también. ko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 nous leur, avions demandé en tout cas de euh, revenir à la normale en restaurant les, les tarifs habituels. Et ils avaient 24 heures en quelque sorte pour euh, euh, rétablir la situation. comme on a noté une augmentation encore plus considérable même des tarifs,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 Euh, les ministres de, le ministre particulièrement des forces armées nous a en tout cas dépanné avec euh, plusieurs chauffeurs euh, de l'armée et de la gendarmerie et donc là je pense que les populations sont en train d'être soulagées. Euh, il y a des destinations vers toutes les régions et nous pensons que d'ici demain avec le nombre de rotations le nécessaire sera fait. Oui, il y a toujours les départs au niveau de Liberté cinq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

su ko defee ñu régler problème bi définitivement merci beaucoup. non pas pour yéen pour nous. je message à l'endroit des Sénégalais pour la jeunesse. waaw. c'est pour qui ça. ah déedéet parce que mën nañu anglais. non moom message tabaski wut quoi donc waa bismillah ah dañuy dañuy dañuy ñaanal yëpp rek ci tabaski jàmm di ñaanal sénégalais yi nekk fii ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew rawatina ca makkatal mu karam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 kon daal ñi ngi ñaanal sénégalais yëpp tabaski jàmm ak salaam jërë